Uh, bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim ya himmata cheyqi ahduri lana bi hada almahdari waltatufi bi nasratin taati lana bi safar mbokki waqul jaa alxaqu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara te di leen ndokkeel yéen ñëpp di nuyu Cheikh Souleymane Badiane mii ma bokk numérom indiwaale ko doon déglu ay audio daanaka léegi laa ko soog a jaaxal jeexal ngir ñàkkoon jot e, mu am ci nag wax yu baari yoo xam ne duma wax ne lëntal la comme nim koy waxee waaye ay lënt lënt la ci man e, li tax mu nekk ay lënt lënt ci man nag walla mu nekk ak lëntal ci man mooy Eh, lii nga xam ne nettali na ko te danaa ci indi benn par benn hmm. eh, Cheikh Souleymane Badiane kàddum yi gannaaw bu ma dégloo audioom yi yépp wadd nga xam ne def ko enregistré ndoor mu wàcce ndoor dëgg la audio yi am na solo lool ndax eh, leeral na ci mawqif bi nga xam ne am na ko ci masala bi waaye nag dafa am benn balaa maa dugg ci masala bi ak seetlu gu ma def ci Cheikh Souleymane Badiane xëy na tàcc yi yiñ ko ñenn ñi di tàccu moo xaw a bëri wala bu ñëwee rek ñu naa ah jaa abul xayri ba defee mu jàpp ne moom bu ñëwee rek dafa war a def xallul muskila maanaam mbir mi bu ca waxee rek leer na nañ ba buy e, ci jotaayam sax da ngay dégg mu ne kon nag xulaasatul qawli mooy li leer ci mbir mi mooy nangam mu mel ni moom ba mu dikkee rek la leeral lépp ci masala boo xam ne e, ay siècle boromi xam-xam jiitu nañ ci doon ci wax am ci ay uute nga xëy ñëw wax ne xulaasatul qawli mooy lii ma wax moo am loolu ak njuumte la gu rëy goo xam ne dama ko seetlu nag ci ay waxam dama xamul nag ndax dafa nekk al euh, al kibru ci moom wala boog dafa nekk ab yëg boppam ci moom wala boog tàcc yi moo bëreeg moom lenn lu nekk mën na ci am waaye masala moom ay boromi xam-xam uute at yu bare bari bari ñu xëy tey wàccee ko ci waqul jaal xaq di ko jàngat Eh, nga taxaw eh, indi sa mawqif ba pare ne xulaasatul qawli ci wax ji mooy lii ma wax moo am <laughs> loolu def na ree lool waaw eh, bu ko defee nag maanaam ci audio bi nga xam ne moom laa bokk indiwaale ko Cheikh Souleymane def ci indi benn laaya bu suñ borom subhaanahu wa taala di wax mu indi ci jël rek xëy na kuppati ci laaya ja lam ca soxla te xaqiqatan wax jëñ bëgg a wax it ca la nekk mooy li yàlla wax ne tattaqisuuna minhu sakran wa risqan asanan e, xëy na même ci laay ji sax firi bi borom xam-xam yi dañ ci am uute nekkul ne ñëpp a dëppoo ci ne e, maanaam man nu la yàlla di defal jullit jum defaloon nit ñi la maanaam xéwalee leen sàngara tuddee ko xéwal ba mu yàgg mu araamal ko am na borom xam-xam yi ne déedéet bu fekkoon na ab xéwal gu mu jox jullit ñi la du xëy a xëy xéewal googa mu xëy araamal ko ndax suñ borom du wut kuy làmbatu ci ay mbiram ndax moo bind lu nekk te xam lu nekk e, maraayil yi nga xam ne sàngara ci la jaarit tegtalawut ne suñu borom dafa xamutoon ne sàngara dafa araam ñaare waxut waxut e, ci alquran nafsu bu leer nañ ñi ne sàngara dafa dagan déedéet fii dëgg la am na yenn borom xam-xam yi ko dégg waaye ku mel ni ibnu abbas e, ibnu abbas radiallahu anhu ak Saïd ibnu Jubayr ñoom bi ñuy firi laaya ji te ibnu Abbas nag xam ngeen ne mooy ibrul umma dafa wax ne bu yàlla waxee risqul ah, ah, maanaam ah, nu mu turati risqan hasanan mu ne lim ci jubli mooy maa axalla min samratiha maanaam li nga xam ne yàlla daf koo daganal ci meññatam ma eh, su ko waxee su ko defee nag bu ne sakran maanaam tattaqisuuna min minhu sakran mooy maa arama dégg nga min samaratiha ba tey li nga xam ne dafa aram ci meññet mi kon suñ borom mi nga xam ne moo bind meññet mooma laala moom tàndarma la meññet mooma ca euh, euh, nu mu tuddati raisin la mu xàmmi ci ne mën nañ ci nangam mën na cee génn dagan nangam mën na cee génn xaraam loolu lay jàngale waaw walaw farat naa ne euh, maanaam sàngara ci boppam lislaam daf koo daganal ba mu yàgg mu araamal ko man gisuma ne l'islam def koo daganal déedéet waaye léegi même bu fekkee ànd nañu ak Souleymane ci loolu suñ borom subhanahu wa taala ci laay yim leeral sàngara dafa leer yasalunaka anil xamri wal maysiri qul fihima ismun kabirun wa manafiun linnaas suñ borom def ne duut ne nag lépp lu am njëriñ ñeel nit ñi rek dafa dagan déedéet ñu bari nag amuñ jàngat boobu yàlla def na yonent dinañ la laaj sàngara mu ne waaye sàngara ak maysar biñ lay laaj xamal ne am na ca bàkkaar am na ca njëriñ kon am na ca bàkkaar am na ca njëriñ kon mbir naka lay daganee ba pare su ko defee foofa nga am ci bàkkaar kon moo lay xamal ne am na sew sew bu suñ borom war a leeral ci loolu te fa muy mujjëg mbir mooma nga xam ne eh, dégg nga moom daf daf na dagan na ba pare te boo ko defee am ci bàkkaar xam nga loolu wax dëgg yàlla fa mu la jëmee mooy bako moo gën ci yow ndax loo xam ne boo ko defee am bàkkaar moom yaakaar naa jullit bi bako moo gën moom waaye nag wa manaafiun linnaasi waxut wa manaafiun lil muminin doomu aadama am na njëriñ yu mu mën a jëlee ci sàngara loolu mënees na cee def ay wax waaye nag seen bàkkaar moo ëpp seen ak njëriñ loolu mooy marxala bu njëkk bi marxalaab ñaareel ci sàngara yàlla dikk na yonent bi yaa ayyuha alladina amanu ak julit ñëpp bii julit ñi la waxal bale manaafiun linnaasi kon nga gis ne ñëwagu doon taxaw ci baatu dagan ak xaraam déedéet dafa doon taxaw ci baatu bakkaar ba ci nit di am ak njëriñ lam cay am ñëwutoon taxawit ci baatu maanaam bakkaar ak tiyaabo dégg nga marxalaab ñaareel bi mu ne laa taqrabu salaata wa antum sukaara xatta taalamu ma taquluun fii it leeralu si dara ci sàngara wane ne dafa dagan wala dafa araam dafa wax rek ne bu leen jege julli mukk fekk yéen a ngi mandi ndara bu dangeen xam lu ngeen di wax kon boo jegee julli fekk yaa ngi mandi xamatoo looy wax kon su boobaa maanaam defoo sa ndigalu te loolu bàkkaar la marxalaab ñetteel bi marxalaab ñetteel bi eh, la suñ borom wax nag ne yaa dina alladina amanu innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali seytaani maanaam léegi nag yàlla ne lii nag sobe la ci jëfu seytaane la fa ci seni bu waxu teet leen ko laallakum tuflihun fii nag indi na ak xaraamal mu tekki ne innama yuridu seytaanu an yuqia baynakum al adaawa wal baxdaa fi l xamri seytaane li mu bëgg mooy tàbbal ci seeni diggante ak noonoo ak mbañel ci sàngara ndax ñaar ñooy ànd mandi xeex xuloo jamante paaka rayante mu ne nag lii yëpp daf la yàlla daf ci bëgg maanaam seytaan daf ci bëgg a def noonu dëddale leen ci walis ngeen tudd yàlla dëddale leen ci walis julli faal antum muntahun ndax da ngeen daytalu sayidna omar na ko intaxey naa ya rab daytalu nañ kon marahil yi laaya ji nim leeree ni yàlla xaraamalee sàngara amul benn xadis boo xam ne Cheikh Souleymane Badiane indi na ko ci biir kàddum yi ñu doon déglu ñun mu nekk xadis boo xam ne gannaaw bu yenentu waxee ne bu leen bind xadis dafa waxaat ne bind leen xadis gannaaw bu mu waxee ne bu leen bind jëlee ci man dafa waxaat ne bind leen jëlee ci man te ñun loolu lañ doon xaar ci moom waaw eh, su ko defee moom Cheikh Souleymane Badiane am na wax ju mu wax ju am solo mooy wax na ne bunt bi ñu di waxtaane eh, mooy maanaam buntab ndax bind sunna ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi digle woon na ko wala diglewut ko saxaaba yi daan nañ ko def wala duñ ko def eh, wax yi la ca gën a wér moo ko wax te it dëgg la mooy li ñëw ci saxiixul muslim ñu jëlee ko ci abi saidin al xudri yi mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi dafa waxoon ne laa taktubu anni wa man kataba anni xayra alquran falyamahu waaw léegi mbokk yi man damay delloowaat nit ñi ñu jàngataat nassu xadiisu abi saidin bi ndax dafa wax ne kenn ci saxaaba yi mosta bind xadis walla dafa wax ne képp ku bind ci man xadis avancé ko léegi wax jooju nañ ko jàngat xam nga euh, bunt bi dafay bunt boo xam ne du du ñëw rek di coow lii nangam lii nangam déedéet euh, Abu Saïd dafa wax ne yenent bi daf ne laa taktubu an nii bu leen bind jëlee ci man lu dul alquran la ca nam mu kon ndax la koy firnde mooy wa man kattaba an nii xayra alquran fal yamahu ku bind leneen lu dul alquran effacé ko waaw kon loolu benn firnde leen ne ñàkkut am na ñu daan bind ba yonentu wax na ña doon bind nañ ko effacé loolu ndigalu yonentu bi sallallahu alayhi wasallam la waaw ma ndax mboolem saxaaba yi lépp lu yonentu mos a tere ba nañ ko wala lépp lu yàlla mos tere benn saxaaba mosu koo def wala boog yàlla daan na tere am ñu yàlla nattu ci saxaaba yi ñu def tereeb yàlla booba ànd ak buñ ko defee yàlla amaana mu jéggal leen yonentu bi daan na digle am ci saxaaba yi ñu mooy ndigalal yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi feeñ na ci xare ba tax ñu gañe leen waaw léegi kon ana muskila bi ci wax jii ñu wax ju jar Souleymane Badiane di wax ne am na ñoo xam ne dañuy dem copier ci Google <laughs> wala masala dañ ko war a jàng ci daara yi man de jàpp naa ne fii ñu fi nekk ñoom ñëpp a toog ci daara jàng nit mën nañoo rawante ci xam ndax wala boog ci ay matière sax laay wax ndax euh, bi ñu nekkee ndar di jàng amoon na ñoo xam ne boo bëggee jàng fiq ci ñoom ngay dem waaye boo demee ci ñoom ci wàllu naxu xëy na amuñ ca foor ba nga soxla am na ñoo xam ne boo bëggee jàng naxu ci ñoom ñoom ngay dem am na ñoo xam ne soo bëggee jàng ci loxo ñoom ngay dem loolu mënul ñàkk parce que amul kenn ku dajale xam-xam yëpp waaye nag ñëw indi sa wax rek taxaw ñañ yëpp dem ci google ñëw tàppe ñëw indi te xam wóor na ma ne yow da ngay dem ci google ndax boo demutoon ci google doo xam lan moo nekk ci google te léeg-léeg ñu gis nga dugal fi ay texte yoo xam ne ci google nga ko jëlee waaw eh, su ko defee kon li gën a wér mooy waxi Abu Saïdin ji loolu leer na wax ji mu wax ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bu leen bind jëlee ci man lu dul alquran képp ku bind jëlee ci man lu dul alquran na nga ko effacé eh, léegi nag buñ ñëwee ci jamono sahabatul kiram dinañ fekk na ci ñoom am na ci ku mel ni Seydina Omar ibn al-Khattab ku mel ni Seydina Aboubacar Sadiq radiyallahu anhu kenn ku ne ci ñoom sax na ne dajale nga ay téere wala ay kayit yoo xam ne dañ ko bindoon ne ay xadiis yonent moo ci nekk nga lakk ko ñëw na ci ay riwaaya léegi kon lañ lakk noonu kay bindoon nañ ko ci jamono yonentu waaye ndax loolu dafa dafa firndeel ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo leen digaloon na leen bind leen hadis beneen bi mooy gannaaw boo xamee ne Souleymane indi na lii niroo ko ak sàngara yàlla bi mu tuddee sàngara tudd na yax bu leer naññi ne kat gannaaw si gi xaraamal naa sàngara bàyyi leen ko ndax du ngeen daytalu ndax Souleymane Badiane mën naa indi benn xadis bu wér jógee ci yonent bi yonent bi ne bind leen sunna jógee ci man wala maa leen tere woon ngeen bind sunna bàyyi naa ko bind leen comme ni mu indee xadis bi mu bëgg a sukkandikuwaat encore qiyaasee ci yenentu ne kuntu naaytukum xan siyaaratil qubuur maa leen tere woon ngeen siyaara bàmmel waaye nag léegi siyaara leen bàmmeel kon waaye léegi dem leen ngeen siyaara ji leer na ana fan la Souleymane Badiane wala ñi mel ni moom mën a indi sukkandikuwaay bu leer bu xam ne yenentu def ne man maa leen tere woon ngeen bind xadis jëlee ci man lu dul alquran léegi nag bind leen jëlee ci man lu dul alquran loolu ana firnde bi bañ bëgg koo loole ak xadis bii nga xam ne mooy wax ne tere woon naa leen ngeen siyaara bàmmeel waaye léegi siyaara leen bàmmeel ana ban xadis le Souleymane Badiane mën a sukkandiku ak ñi ànd ak moom ci kàddu gii ci wax ju leer ju yàlla yonent bi sallallahu wax ne lépp laa taktubu nii wa man kattaba anni xayra yem falyamahu bu leen bind jëlee ci man ku bind jëlee ci man lu dul alquran nan ko effacé ana ban wax lañ mën a indi firnde gannaaw buñ ko nirooloo sàngara yàlla wax ci sàngara ba ne daytalu leen jeex na araamal naa ko ana fan la yonent bi wax ne bind leen sunna lépp maa leen waxoon ne bu leen bind sunna waaye léegi bind leen sunna loolu amul boo demee ci téere yépp ci yi ngay gëstu riwaay yi ngay fekk ñu sukkandiku maanaam bu dee fanweer la ñaar fukk ak juróom-ñett yi wérut ñaar ñoo ci wér ñaar yi nga xam ne wér na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ci biñ ci gën a jàpp mooy bi mu waxoon ne uktubu li abi saaxa ci xutbaam gam defoon ca fathu makka léegi lan la waxoon nañ ko bindal abi saaxa ndax ñun dañoo wax ne yonent bi dafa tere woon bind déedéet dégg naa ko mu dugg ci ne yenent bi daan bind lettre waaw yenent bi mosta tere bind jamono yenent bi am na ñu daan bind saaba yi am na ku ñu ci yenent bi digaloon ñuy jàng bind Seydina Ali daan na bind waaye bind xadis lañu wax ndax digle woon na ko wala diglewut ko waxuñ tamit ne jamono yenentu kenn mosta bind xadis ah kañ parce que bu ko kenn mosutoo a bind yenentu du ko tere bu ko kenn bind bindutoon Seydina Aboubacar du fi fekk lu muy lakk bu ko kenn bindutoon Seydina Omar du fi fekk lu muy lakk eh, maanaam yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam eh, terewutoon bind parce que ci jamono yonentu am na ñu daan bind ndax bu amutoon kuy bind kon duñ bind wax yi waaye dafa terewoon li ñu wax mooy dafa tere woon ku bindee ci moom léegi nag yeneentu bu teree ne bu kenn jëlee ci man lu dul alquran képp ku ko bind na ko évancé waaw loolu dañ ndax dañ bëgg sukkandiku ci leetar yu mu doon bind ne kon leetar yam doon bind am na ñu mu ko doon sant ñu ko doon bind waaw léegi ndax ñooñu ñoo ko bind ci moom wala moom moo leen sant na leen bind leen nangam waaye wallaay yaxe ci mulaana lu yenentu wax na def leen nangam loola dafay nekk benn régal boo xam ne deesu limaale ne lii kat bokk na ca lam doon tere ndax kat li ñuy wax istisna mooy sette dafay am léegi nag euh, ñi doon bindal yenentu bi wax yu doon ko bindal ay lettre yenentu bee leen ko doon sant ku mel ni Seydina Aboubacar Sadiq ku mel ni Omar ibn al-Khattab ku mel ni Seydina Ousmane ibn Affan ku mel ni Ali ibn Abi Talib ku mel ni Subayr ibn Awam ku mel ni Amir ibn Fuayra ku mel ni Omar ibn al-As ku mel ni Ubay ibn Kaabin ku mel ni Abdullah ibn Arqam ku mel ni Saabit ibn Qays ku mel ni Ansalat ibn Rabi ku mel ni Mughayrat ibn Saab ku mel ni Abdullah ibn Rawaha ku mel ni Khalid ibn Walid ñii nga xam ne ñoo daan bindal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ak seen waa ji muy muy kañ muy muy Muawiyah ibn Abi Sufyan miñ ci boole ak Seydou euh, nu mu tuddati Seydou ibnu Saabit xam nga ñii yonent bi daan na leen wax ñu bind waaw léegi lii lan la joteeg yonent bi ne laa taktubu anni xeyral Qur'an lan la joteeg leetar yam doon bind di ko yónnee mu nekk mbir yoo xam ne ay règlement yu muy ay ay yu muy yónni nit la te te ci biir yónnentu googa oo oh, nit ki ci yàlla la kon wax jooju jëm ca buur ba Euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam porté ko ci dégg nga li nga xam ne moom mooy ab këyit yónnee ko ko ngir kooko yër ko xam ne lii kat yonent bee ko wax ak tampon bañ ca kaste waaye booba munoon naa yónni ab nit waaye est-ce bu yónnoon kenn nit rek nit taxaw ne yonentu yàlla Muhammad ma yónni nangam lan mooy nekk firnde bi waaye bind boobu dafay nekk firnde ci moom kon yonentu mosta tere bind waxuñ ne yonentu dafa tere mbind lañ wax mooy dafa tere woon bind sunnaam loolu nag jàpp naa ne wax dëgg yàlla du loo xam ne ñaar war nañ cee werante walla ñett. Euh, waaw <clears throat> su ko defee euh, bu fekkoon ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ñu waxee mooy tare woon na ko waaye gannaaw si gi daf ko daganal xam nga euh, dégg naa sax mu di wax ne Abdullah ibnu Omar mi ñuy wax ñun dañ koy jaawaleeg Abdullah ibnu Omar bale waaye Abdullah ibnu Omar ibnu al la. xëy na dañoo yeggaliwu tura mu jeex waaye xam nañ ne eh, am eh, Abdullah ibn Amr ibn al mooy ki nga xam ne moom moo daan bind léegi nag eh, Abdullah ibn Amr Amr ibn al moomu Abu Hurayrata riwaaya wax ne man xawma ku ma gën a mokkal xadis kudul Abdullah ibn Amr ibn al-As te li ko def mooy daf daan bind te man daaw ma bind waaw Abu Hurayrata mi solo loolu moom moo wax ne toog nañ di bind toog nañ di bind li ñu jëlee ci yenent bi sallallahu taala alayhi wa bañ koy bind yenent bi génn nañu lan ngeen di def nii ñu ne ko naktubu ma nasmau minka ya rasulallah liñ déggee ci yow lañuy bind yenent bi sallallahu alayhi wa dal di leen tontu na leen ak kitaabu maa kitaabillah ndax dafa am téere bu ngeen bëgg a bind mu bokkut ak téere bi yàlla bi nekk feeg moom ne leen dindi leen bàyyi leen bu leen bind ci man mayewut ci ndigal eh, am na beneen riwaaya boo xam ne abu saidun eh, al xudri abu saidun al xudri moom moo ko wax ne mu ne maanaam sàkku nañ ndigal même abu hurayra riwaaya na lu mel noonu ne sàkku nañ ndigal ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir bind sunnaam mu aaye ñu ko kon ñun waxuñ ne yonent daf doon tereel bind léegi nag firnde bi wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo tere woon te digal gim digal ne e, nañ bindal maanaam ngóor su taxawoon ca fatxul makka ba muy def xutbaam bi am ay mbir yu yonent bi sallallahu alayhi di wax xamut ko wala mënut koo jàpp mu ne yonent bi ndax mën nañ ma koo bindal yonent bi nañ la ko bindal loola war ta nekk lu ñuy sukkandiku ne yonent bi digle na bind xam nga dafa am benn xadis boo xam ne e, biñ demee ci jumaa maanaam bu imaam di xutba nga taxaw julli ñaar rakk yaakaar naa def naa fi waxtaan ak Souleymane Badiane mii e, imaamu Malik wax ne boo ñëwee danga war a toog waroo julli ñaari rakka moom Souleymane mu ne wax ji nga xam ne wax waxoon nañ ko e, nu mu tuddati e, mbokk mi ne ko ki ne ko ne ko ne ko duggal ci jàkka ji mooy mooy mooy mooy Sulayka al-Qatfani bi mu duggee ci jàkka yenentu bi ne ko qum wa salli rak'atayni jogal julli ñaari rakka ñu ne loola moom la ko waxoon waaye xam nga wax ji dafa continuer qum wa salli rakaatayni jogal julli ñaar rakk ba pare yenentu dafa continuer wax ne ida daqala ahadukum al masjid wal imaamu yaxtubu dégg nga fal yusalli ni wal yatajawas fi ima ne julli ñaar rakk te gàttal si kon bi mu waxee ne uktubu li abi saaha mënoon na caa teg bu fekkoon ne yemut ci ñu bindal abi saaha loolu mu doon laaj mënoon naa wax ne na bind jëlee ci man waaye amut fu indi wax ne wax na ne uktubu anni as sunna bind leen jëlee ci man sunna wala kuntu naaytukum an kitabati sunna lakin alaana faktubu loolu yonent waxu fenn ne léegi mbir mi bind leen ko beneen firnde bi wax ne nag bi bi bi gën a wér xam ne nag maanaam du du du lu ñuy làmbatu mooy Seydina Aboubacar Sadiq radiyallahu anhu gannaaw boo xamee ne yonent bi jógee na fi moom moo fi toog su fekkoon ne yonent bi digle ne ko kon Seydina Aboubacar dana ko def waaye lan moo tax Seydina Aboubacar Sadiq radiallahu anhu dajale mboolem lañ amoon ci ay ahadis ci jamono booba gannaaw bu yenentu génne àdduna ba yónnee ci sayyidatuna Aïcha ngir mu jox ko lana ca ñëw lana ca moom ci ay hadis te loolu boo demee ci taskiratul xufaas bu imam az-Zahabi nettali na ko mu ne mu jël hadis yooyu yëpp dal di ca fanaan da ko wëlbati da ca fanaan ba bët set mu xëy dal di lakk hadis yooya ba mu ko lakkee sayyidatuna Aïsa laaj ko ne ko lu tax nga lakk ko mu ne ko ngir bañ ma génn àdduna mu nekk fi ma nettali wax joo xam ne maa ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te wax jooju ma jëlee ci yonent bi ka ko jëlee óolu naa ko waaye wóorut ma fenal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu laa ciy bañ lii Seydina Aboubacar def na ko gannaaw Seydina Aboubacar Sadiq radiyallahu anhu Seydina Omar ibn al-Khattab def na lu mel noonu bi fi Seydina Aboubacar jógee Seydina Omar a toog bu fekkoon ne yonent bi digle waatoon nag gannaaw bu mu ko teree nañ ko bind kon Seydina Omar kenn du ko ëppale ci loola te itam buñ fàtte ne bis bi yonent bi sallallahu waxoon ne wax ne andi leen ma këyit ak big ngeen ma bindal leen loo xam ne bu ngeen ci jàppee nangam Seydina Omar moo nangoon këyit ba ak big ba lan moo tax Seydina Omar bañaloon yonent bi loola ba pare wax ko ne ko doy nañu téereb yàlla bi su fekkoon ne yonent bi na leen ñu bind yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono ba muy dund kon bu waxee ne indi ma bindal leen kon Seydina Omar ibnul Xataab dana bàyyi mu bind beneen bi Seydina Omar ibnul Xataab radiyallahu anhu moo gënoon a tar Seydina Aboubacar ca nam bañee woon ku di sax di nettali sax hadiis yonent bi sax si ndax riwaay bi eh, bi nga xam ne imaamu Dahabi indi na ko borom xam-xam yu bëri indi ko ñoo ci seerul axlaami nubalaa yi mu di wax ne Seydina Abubakar waxoon na Kaab ne ko bàyyil nettali xadis wala ma yóbbu la fa nga jógee koon waaw wax kii nga xam ne mooy ah, Abu Hurayra ne ko bàyyil nettali xadis wala mu yóbbu la fa nga jógee ko kenn ku ne mu ne ko bàyyil nettali xadis kii mu ne ko wala ma yóbbu la ci ardu xirada kii mu ne ko bàyyil nettali xadis wala dinaa la yóbbu ci ardu daws waaw léegi lan moo waral Seydina Omar meloon noonu ci moom lu tax Abu Hurayra ne maa ngi leen di nettali xadis yoo xam ne bu doon ci jamono Seydina Omar mu dóor ma yatam bi kon Seydina Omar daf ko doon tere bu ko tere wutoon loolu du ci am beneen bi mooy Seydina Omar xam nga net li nañ ne bëggoon naa bind sunna waaye déedéet Seydina Omar dafa jot ne am na ay borom ay nit ñoo xam ne ñu ngi yor am mbind mbind yooyu ñu yor muy sunna tuddee ko sunna ci jamono yonente sallallahu alayhi wa salaam lañ ko bindoon wala ci jamono Aboubacar ñoo xam waaye daal am na ñu ko yor mu fexe ba dajale loolu lépp ñu yaakaar ne daf koy boole mu diisoo ci ak gaañi ñu ci bari nangu waaye moom Seydina Omar mujj gi mu bañ loolu dal di dajale loolu lépp dal di ko lakk la muy firndeel mooy bu ko yenentu bi digle woon Seydina Omar du ko def su fekkee ne sax na ne yenentu sallallahu alayhi wasallam digle woon na ñu def ko kon Seydina Aboubacar Seydina Aboubacar am na bàkkaar bu rëy lakk gi ko lakk ndax xotti na ormaa yenentu bi bu fekkoon ne Seydina Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam digle woon na ko ci jamonoom kon Seydina Omar ibnul Xataab xotti na ormaa yenentu bi lan moo tax mu dajale ko lakk ko lan moo tax mu ko doon tere kon mbir yi wax dëgg yàlla li wétti wéer mooy jamono yenentu sallallahu alayhi wa sallam yenentu tere woon na ko am na ñum waxoo ku mel ne Abdullah ibn Omar riwaaya bi sax mu ne ne doon na bind yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko gaañi ne ko li ngay bind ci yenentu bi wóorut ndax yii dafay mer yi nangam yenentu bi ne ko bindal digaloon na ko ko moom d'accord waaye ndax loolu dañuy dañuy jooyal mbir mi ne digal ndax lépp lu yenentu mos a digal kenn ñëpp la ko digal bu fekkee ne lu yenentu mos a digal kenn ñëpp la ko digal mën nañoo indi taxawaay yu baree baree bari bari yoo xam ne yenentu digal na ko nit te borome xam-xam yi wala am na ay hadis yu saxal gannaaw si gën a lii kat diw la ko yenentu digaloon waaye ku dul kii nii digaluñ ko fi may tëjee nag mooy sahaaba yu baree baree bari bari ci magi saaba yi Seydina Usmaan ibn Affan xam ngeen ne moom tamit bokkoon na ci ñi nga xam ne ñu ragaloon ñu bind hadis la ñu ragaloon ñu ci wax lu bari la te loolu boo demee ci tabaqaatu kubra bu ibnu saadin andi na ko eh, wax ne Seydina Ousmane sax taxaw na ci ab minbar di xutba di wax ne aw dagalul ci kenn ci yéen mu di solo ay xadis yoo xam ne déggeewut ko dégg nga ci jamono Seydina Aboubacar dégguma ko ci jamono Seydina Aboubacar dégguma ko ci jamono Seydina Omar ibnul Xataab loola moo lay wanal ne kon gaaw xaat nit ñi commencé nañ am na ñoo xam ne doon nañ wax ay xadis yoo xam ne Seydina Ousmane mu ngi doon ragalloo nit ñi ngir ñu tàbbal ci xadis yi loo xam ne bokku ci beneen bi ci des mooy ibnu hajar euh, nu mu tuddati euh, ibnu hajar dafa wax ci sanol xadis ne euh, ne ibnu batal ak keneen ku dut moom dañoo wax ne lu bari ci magi saxaaba yi dañ doon wax nu mu tuddati dañ doon bañ a waxtaan ci yonent bi sallallahu alayhi wa ngir ragal yokk dara walla wàññi dara waaw ba sax wax ne maanaam siboon nañ siboon ñu bari sax dañoo siboon ñuy waxtaan ci yonent bi sallallahu alayhi lu bari ci sahaaba yi ak ci taabiina yi eh, kon loolu yaakaar naa ne bokk na ci yi nga xam ne mën naa sukkandiku wax ne eh, li gën a wér ci bunt bi mooy li Souleymane waxoon ca départ am mooy li abu abu eh, nu mu tuddati abi saidin al xudri yi wax mooy yonent bi dafa ne laa taktubu ni wa man kataba anni xayra al quran falyamahu ku bind jële ci man lu dul al quran na ko effacé loolu mooy li léegi nag beneen bi mooy wax ji mu wax ne sunna maanaam képp ku wax ne ci jamono Seyd euh, Amar euh, nu mu tuddati euh, Amar ibn Abdul Aziz lañ ko njëkk a defee kii nangam juumte gu rëy la wala nangam loolu xam naa ne su ma bëggee tontu audio yëpp dafay gudd waaye di ko wax rek ne Omar ibn Abdul Aziz taxawaay bi mu ci def gannaaw bu Banu Umayya ta ñëwee Muawiya ñëw sos lu bare bare bare ñu gis ko ci ay hadis yu wérut ñii di wax na yonentu bee ko wax ci Muawiya ci ay ngëneelam lu bari ñu di ko araamal di daganal te ay borom ay nit ñoo ko doon wax te ñooñu doon nettali ay riwaaya jamono Abdou Malik jamono Marwan ibnul Akam jamono yooyu yëpp ay nit di bind ay xadis di ko sos di ko ci dugal loola nag jot na su boobaa lii nga xam ne mooy amr moom la amr ibn Abdul Aziz def mooy yónni ci Aboubacar ibn al Azm ne ko ne nañ dajale la fa nekk ci ay xadis ngir lan ngir lii nga xam ne mu ngi xew ak li ñuy dugal ci wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que boobu loolu leer na kon nag booba jot na booba jot na waaye dégg naa ko muy wax ne léegi képp koo xam ne da ngaa wax ne xadis waruñ ko woon a bind léegi nag mu andil sa téere xadis bi déedéet man de li ma am ci téere xadis bi ma la ko andil ndax maa ngi koy jëriñoo waaye masalam xam-xam la ñuy waxtaane waxtaanee dégg naa it nga ne laaj bi kenn waru koo laaj ndax jamono yenentu dégg nga daan nañ bind nangam loolu kenn ah kañ laaj nag lëndëm la d'accord bépp laaj rek lëndëm la tontu mooy li koy leeral loolu moom jàpp naa ne lu nit gàtt gàtt xam-xam xam nga ne laaj moom ab lëndëm la ndax ki xamut mooy laaj kon la muy laaj lënt lënt la ci moom loolu ak lëndëm la kon laajab dof amut tontub dof moo am laajab nit ku réer amut tontub nit ku réer moo am ndax ki nga xam ne dafay laaj moom la muy laaj bu lëntutoon ci moom du ko laaj kon laaj yi Seydi Aboubacar tàbbal ci duut luñ man a sànni xeer wax ne laaji dof la laaji ku amut xam-xam la laaju benn waay bu jógee fële bëxër ñett la déedéet laaj yu amaa ama am solo la waaye fexeel rek tontu ci tontu bu leer ndax kat ku yor sab lampu lëndëm maanaam courant coupé na day la la nga war a def rek mooy taal sab tor torsu ba nga yor ngir ñiitoo ko bu fekkee ne nag courant bi tàkk na su suba mën ngaa fay sa lampu li garaaw kay mooy nga yor sab lampu di ko taal ci digg ba bëccëg waaye guddi moom mën na see taal lampu kon loolu mooy li nga xam ne doon naa ko ci indi lenn ci ay leeral ngir wane rek ne laaj yi am na solo tontu yi it ñun waxuñ ne yonent bi da doon tere bind waaye lañu wax mooy yonent tere woon na ñu bind sunnaam sahaaba yi daan nañ ko tere gannaaw boo xamee ne nag yonent bi daan na ko tere waxuñ it ne kenn mosut koo bind déedéet ndax loola gis nañ ko ci téere yi comme ni ngeen ko gisee jàng ko comme ni ngeen ko jàngee waaye ndax ñooñu yonent bee leen ko digaloon ñu ne ah abi saade yonentoo waxoon ne nañ ko bindal ak kan duñ indi ñaareel wala ñu ne ah am ah, nu mu tuddati abdulahi ibn amr ibn al as de yonent bee ko waxoon na ko bindal te itam nañ seet riwaaya maanaam bi nga xam ne abu hurayrata nett li na ko abu hurayrata ci juróom-ñaari la at ci gàddaay gi la dugg ci diina lislaam léegi nag juróom-ñaari at ci gàddaay gi abubakar bi mu ñëwee dugg ci lislaam fan la nekkoon medinatu munawara léegi maanaam euh, abdullah ibn amr ibn al aas bi muy wax di bind ci yenantu bi ñan ñoo ko waxoon na ko li ngay bind ci euh, ci yenantu bi yenantu bi day mer day nanga waxut waaye midinaa ko ko wax waaye dafa wax ne maanaam quraysi yi ñoom ñoo ko wax loolu kon ñaari riwaay yooyu bëgguma continuer du guddal incha allah bu aajo ay njàngat danañ ko ci def waaye jar na defaat jàngat asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh